marché bi de alhamdulilah lépp loo xam ne war nañ ko mën a soxla euh, mu ngi fi surtout ñu ngi jëm ci koor gi euh, donc euh, marché bi am na approvisionnement bu baax di wax ni xëy na tàndarma moom la ñu amul peut-être li nga xamante ni moom la ñu soxla ci ay quantité mais différence bi daal dafa néew te am nañu njottu tamit ni consommation bi dina wàññeeku parce que en fonction du contexte euh, consommateur bi dafay adapté wu donc moo tax euh, euh, ñi nga xam ne ñooy indi tàndarma bi tamit ñu daal di ci jël mesure de précaution yooyu daal mais sinon am nañu ay quantité yu doy ñu ngi am plus de 2300 tonnes 2300 tonnes ci ci marché bi ci wàllum tàndarma ceeb Euh, sucre lepp vraiment mo ngi fi am quantité suffisante yo xamantene man na satisfaire li ñuy soxla ci weeru koor gi benen weer bi ci top yépp inshallah donc amul benn jafé jafé té fi ñu doon am inquiétude mu nekkoon Inde ak confinement bi ñu nekkoon gis nañ ni reprendre nañu seeni activité euh, ba ñun am na fa sax euh, benn bateau benn commerçant importateur bo xamni déjà chargé na ba quitter mu ngi ci yoon bi di ñëw am na beneen importateur bu bu mag

ñaan rek euh, situation bi muy stabiliser wu gaaw ndax ñun ñii ñu reprendre suñu activité économique yi ndax situation bi jàngal nañ ni dañu war a gën a liggéey pour ñun ñu am suñu souveraineté alimentaire loolu moom waruñu ko naatable fu mu ne nii war na nekk objectif bépp sénégalais pour ñu am souveraineté alimentaire rupture moom incha allah du am waaw bu neexee yàlla du am parce que euh, toujours euh, parce que man bi ma waxee fii ak deux mois loolu euh, loo xamante ne déjà mu ngi fii la te waxuma yi nga xamante ne déjà ñu ngi koy xaar ci mois bi donc amul ñu benn inquiétude boo xam ne vraiment mën nañ koo am ci wàllum produit alimentaire denrée de première nécessité moom amul incha allah. tendance bi moom mooy dañoo ñu ngi respecté prix yi xam nga euh, diggante depuis crise bi ba léegi ñuy samay collaborateur ñu ngi ci terrain bi euh, fu mu toll nii jot nañu def lu toll juróom-ñaari junni visite ak lu ci topp bi ñu defee ci juróom-ñaari junni ak visite yu ci topp ñu ngi gis ñaari junni nit par exemple nit yoo xam ni respecté wuñu ndax loo gis rek am na ñoo xamante ñi nañu topp ñi duñu topp mais boo xoolee diggante juróom-ñaari junni ñaari junni ñu wàccu yoon mën nañu ne ñi appliqué ñoom ñoo gën a bëri ndax juróomi junni yi ak li ci teg respecté nañu donc ñi nga xamante ne wàccu wàccoo nañu wàcc nañu yoon am na ay sànq ay daan yu leen teg donc di am yaakaar ni xëy na du dellu si waat si yooyu pratique donc pour wax ni pour jël lu jëm ci wàllum prix daal suñuy collaborateur ñu ngi ci terrain bi agent commerce yi pour fexe nit ñi respecté ko mais tamit di wax ni souvent flambée des prix boo déggee souvent ñuy wax flambée des prix day fekk mu am ay tension ci marché bi te tension marché bi li koy indi moom mooy bu fekkente ne li ñuy li li consommateurs yi soxla barewul ci marché bi te fu mu toll ni ce n'est pas le cas lépp loo xam ne soxla nañ ko mu ngi ci marché bi bu baax a baax a baax. daan yi dafay am euh, kii euh, mën nañu saisir sa produit. ba pare fay amende parce que euh, li jëm ci infraction économique euh, pour baña diesel turbino yi dañuy loi bi dafa prévoir lu ñuy naan transaction pécuniaire manam mmh. bu fekkentene da nga def lo xam euh, waroon ak ak yoon dafay am benn procès verbal boo xam ne moom la agent yi di dressé contre yow bu ñu defee procès verbal dañ lay convoqué nga ñëw ci service bi ñu dressé procès verbal procès verbal boobu bu ñu paree boo boo reconnaître infraction bi nga signé ñu daal di defar transaction bi nga xamante ne moom nga war a fay parce que amende yi dafa loi bi tamit da ko prévoir boo ko fayee dafa am benn registre boo xamante ne moom moo fa nekk dafay am resu loolu dañ koy verser trésor parce que registre boobu waa trésor ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy joxe donc noonu lay demee contrôle bi moom ñu ngi koy amal euh, mën ngeen visiter sax tout à suñu laboratoire euh, parce que am nañu fii laboratoire euh, national de contrôle voilà dañu am laboratoire boo xam ne day analyser mhm. mais tamit dafay def contrôle donc mu nekk lu am solo bépp produit balaa ñu koy dugal ci circuit distribution au Sénégal dafay am contrôle muy boo ko importé balaa muy dugg si fii waa douane dinañ la laaj lu ñuy naan DIPA DIPA moom mooy déclaration d' importation de produits alimentaires DIPA boobu daca balaa ñu la ko jox dafay am ay échantillon yu ñuy prélever ñu ñëw analyser ko bu fekkente ne résultat yi méngoo na ak li nga xamante ne moom la ñu moom la euh, Sénégal tëral ñu daal di la délivrer sa DIPA nga yóbbu ko duwaan ngay soog a mun a dugal sa produit ñu mun koo dédouaner bu fekkente ne tamit da nga am unité de production fi, ci Sénégal boo xamante ne da nga bëgg a def ay produits jaay fi marché bi tamit dafay am lu ñu Fra numéro d'autorisation Fra loolu tamit dañuy ñëw visiter fi nga xamantene fofu ngay défé sa production bi ñu xol est-ce que méngoo na ak li nga charte yi nga xamantene mom la fi nek mom mom la yon tek mais aussi ñu jël échantillon bobu produit ñu analyser xol est-ce que méngoo nag li nga xamante ne loolu la yoon tëral bu méngooyee ñu jox la numéro d'autorisation Fra eh, ba pare di topp li nga xamante ne moom nga liggéey donc lépp loo xamante ne vraiment mën nañ ko def pour euh, protéger aar askan bi euh, am nañ ko jumtuwaay yooyu léeg-léeg lii da ngay gis koo xamante ne dafa dugal ci circuit bi loo xamante amul te autorisation dañ koy retirer mais boo demee ci Euh, structure yu organisé comme ay grande surface bo amul numéro d'autorisation duñu nangou nga jaay len parce que dañu xamni service du ministère buñu ñëwé gis lolu dañ koy retirer teg len ay daan ba paré topat la donc ñom du len ko jaral parce que day yak seen réputation masque mom euh, gis ngeen ni déjà sénégalais xaruñu sax ñoom bi ñu pandémie bi commencé am na ñu bëri ñoo xam ne commencé woon nañ di initier di jaay. maintenant décision li président la république bëgg moom mooy fexe ba masque yi ñëpp jot ci mais ci. anam ni mu gën a yombee. donc euh, gouvernement mu ngi ciy liggéey am na am na dogal boo xamante ne président jëloon na ko euh, démb. pour ñu xool nan la ñu mën a xëy na bu dee subvention la ñu subventionné masques yi ba nga xamante ne askan bi mën nañ ko jot. ci prix boo xamante ne bu yomb la. li muy ministère du commerce industrie artisanat ak waa DER. lëkkaloo nañu lépp pour liggéey vraiment euh, yombalal askan bi ñu mën a jot ci masque yi DER am na enveloppe boo xam ne dégagé na ko pour financer ñi nga xamante ne ñoom ñooy defar masque yi euh, ministère de l'artisanat am na lu mu am euh, ministère du de l'industrie tamit naka noonu ministère de du commerce aussi am na loo xamante ne am na ay partenaires yu ñu lu ñu bëgg a teg ci table bi donc wax ni vraiment initiative yi daal ku ci am rek na remonter lu mel ni ADPME mhm. lu mel ni ay chambre de métier euh, lu mel ni euh, DER bu ko defee nga mën a profiter bénéficier ci appi yooyu xam nga critère de choix yi wax dëgg yàlla euh, marché bi comme dafa dépendre ci ci ministère euh, équité territoriale. Mm-hmm. ñoom ñoo def liggéey bi ci war yépp waaye balaa ñoo tàmbalee liggéey bi. Mm-hmm. dañ ñoo saisir ne ñu dañoo bëggoon a xam ñan ñooy ñii di importer ceeb. Mm-hmm. waaw biñ ñu waxee nag ñun wax nañ leen ñi nga xamante ne ñoom ñooy importer ceeb euh, donc te ñu ñi nga xamante ne vraiment ñoom la ñu gën a xam. ci importation ceeb bi ñoom ñooy ñi ñi proposer prix bi nga xamante ne moom moo gën a. Euh, Euh, méngoo ak li nekk ci marché bi parce que euh, ñoom par mesure de transparence bëggoon nañu yaatal lépp mais bi ñu ko yaatalee naturellement ki nga xamante ne moom métier am la moom xam na li muy proposé lan la donc looloo tax tey jii deux cent soixante quinze mille ndax gis naa sax dégg naa sax am na ñu naan euh, ñoom bu ñu leen joxoon deux cent soixante dix mille dinañu indi même catégorie ceeb bi te état bi du ci fay mm. xëy na kooku xaw ma fa la ko teg mais comme nee na bu ñu ko joxoon parce que dafa ne comme état bu ko joxoon xaalis te état moom xam nga moom balaa mu laa fay da ngay def service bi ba noppi mhm. état du la jox xaalis ngay dem di uti marchandise donc loolu moom amul fenn te pare si urgence bi ñu toll est-ce que am nañu temps toog fii xaar ki nga xamante ne dafay xaar état jox ko pour mu dem uti ceeb mhm. ndax par exemple ba bateau yi nga xam ne nee naa la moom moo quitté eh, barki démb balaa mu fi yegg si peut fin mai mhm. donc est-ce que nous nañu xaar ci deux mois ci jamono yi ñu tollu non pour que koku ñu financer ko deux 000, mu dem outil ceeb xam nga loolu euh, méngoowul ak li nga xamantene ne euh, mooy réalité bi ceeb bi nga xamantene moy indien bi ñun même catégorie de riz bi ñuy distribuer ni mom mo fi nek depuis 2012 2012 ba 2019 mom même catégorie la ceeb boobu d'habitude mom mo doon occuper marché bi à hauteur de 70 ba 80 ndax prix bi moom moo gën a yomb mais gis nañ ci mois si vers la fin du de de l' année deux mille dix neuf mu amoon ay jafe-jafe. ci approvisionnement bi ba nga xamante ne. ceeb boobu dem na ba rare looloo taxoon ñu doon wax ceeb bi prix bi dafa yokk parce que. Euh, ceeb bi nekkatul ci marché bi yeneen ceeb yoo xamante ne ñoo ko ëpp qualité ñoo nekk ci marché bi. yooyu ceeb nag naturellement moom moo gën a cher. donc ba fin du mois de mars bii nii. ci la ceeb indien bi commencé dugg si waat ci ci marché bi tey jii xëy na mu ngi toll autour de 35 ba 40 pour cent du marché. ñi nga xamante ne ñoom ñoo gagné euh, marché yi ñun bu ñu yégee si amee liste bi dañoo effectuer échantillon parce que comme seen produit dugg si yoogu woon ci marché bi mu ngi ci port bi il fallait ñu effectuer échantillon bi xam est-ce que qualité bi méngoo na ak li nga xamante ne moom la yoon digal biñ ko defee. laboratoire bi def analyse mu gis ni mu ngi méngoo ak norme sénégalaise bi nga xamante ne moom moom la ñu prévoir moom la ASN ASN euh, xaatim ci wàllum euh, ceeb méngoo ak moom donc biñ ko amee euh, donc ñooñu ñoom ñoo nekk di livrer noonu ceeb bi donc ceeb bi moom vraiment amul problème qualité amul problème prix ndax prix yi moom wax dëgg yàlla

industrie bi fi nekk mu ngi am produit sur le marché ci marché bi bi mu bi mu bi mu bu mu taxawee tamit euh, ministre de de de de l'équité Mansour Faye dem na consulter euh, suñu compagnie bi fi nekk pour ñu jaay ko ceeb kii ñu jaay ko suukar am na benn quantité boo xam ne ñoom moom moo disponible woon ci ñoom moom mooy quantité euh, sucre en morceau cent tonnes jël nañ ko lépp. mu am beneen quantité boo xam ne ñoom soxlawoon nañ ko ci sucre cristallisé moom mooy lu ñuy naan sucre en poudre. mais ñoom waa CSS dañu ne conditionnement bi ñoom duñ ko mën parce que ñun dañu état dafa bëggoon ñu def conditionnement diggante cinq kilo ak 10 kilo ñoom nee nañ ñoom seen conditionnement bu bu bu 50 kilos la donc mënuñu satisfaire euh, loolu donc évidemment donc euh, ñi nga xamante ni am nañu suukar. Euh, ñu daal di importer. donc loolu rek a ci nekk mais sinon amul benn euh, problème boo xamante ne am maintenant dégg naa ñuy naan ñii amul amuñu habitude importer man franchement. loolu lañ fi fekk ñooñu d'habitude dañ leen di gis ci liste ñi nga xamante ne ñoom bénéficier de départ donc amul lenn loo xamante vraiment ñun am nañ ci benn inquiétude. voilà ah man de pas à mon à notre niveau. Mhm. parce que ce sont des personnes même l'année dernière bi ñuy une campagne bi avons am bénéficié nañ ci. Mhm. waaw donc euh, peut-être euh, le problème est ailleurs. Mhm. mais euh, vraiment ñun moom si nous statistique amuñu leneen loo xamante ne mën nañ cee mën nañ cee wax daal. dina am impact parce que ñu ngi bëggoon tambalé tàmbale échange ci walum zone de libre échange continentale africaine ci walu accord bi mhm. le premier juillet mhm. té amoon na ay réunion yo xam dañ ko waron tenir pour tous les plans xamantene nous moom soxla euh, euh, février il ba légui une réunion amul donc naturellement nous xamna du ñu mëna respecter calendrier mm. maintenant l'Union Union africaine s'est nañ pour ñu xol na organiser une réunion virtuelle des ministres. Mm. waaye réunion virtuelle ministre ministres, baax baax ba il faut que les techniciens yi am ba mm-hmm. te techniciens yi tant que réuniruñu fay jafé pour ñu pour ñu avancer donc xamna mom mm. dina am impact bu baaxa baaxa baax ci non du ko freiner gaw mu freiné ko parce que euh tey euh crise bi li mu révélé moom mooy soxla buñu soxla ñun ñu nek benn mais ñu ñu dépendre ci ñun d'abord xam nga nit booy yaakar mm-hmm. da nga yaakar ci say mbokk yaakar ci ñi la gëna a mm-hmm. ndax bu problème amé ñoo ñoo wara a taxaw donc ñun tey jii crise bi limu mu ñu war a jàngal moom mooy ñu gën développer suñu marché intérieur d'abord dëkk bu nekk da nga war a sa marché intérieur mu gën a am doole mm-hmm. boo jógee foofu lu mel ni Afrique ñu fexe ba ñun ñu gën a dëgëral suñu marché euh, africain parce que tey jii Afrique ñun ñoo fi ëpp suuf boo xamante ne mën nañ fa bay te ñun ñooy gën a importer produits alimentaire donc tey te zone de libre échange continentale africaine li li ko tax a jóg moom mooy justement ñu fexe ba nga xamante ni oppor kii potentiel état kii Afrique ñu mun ko ñu mën ko exploiter bu baaxa baaxa baax donc crise bi fay tax xeyna ku doon yox yox yi wala ku doon am leneen lo ci xalaat nga gën am conscience ni Afrique fa la mbir mi nekk ndax tay ji bu yeneen dëkk yi amee jafe-jafe yow fi Sénégal par exemple nga produire nga am autosuffisance ba mën a exporter ci continent africain bi nga xam ne moom mooy gën a importer mm-hmm. donc xam nga ni say day gagné beaucoup plus day am moins de temps mais en plus day gën am njëriñ pour ñëpp perspective yi kay moom mooy déjà euh, ku ci nekk nga mën a liggéey encore développer sa commerce intérieur comme ni ma ko waxee parce que dina am impact moom mm-hmm. ndax li nga doon exporter ci dëkk yooyu dana wàññeeku parce que même bu fekkee nee nañu noo marchandises yi bokkuñu ci kii yi critères yi mm-hmm. ça va être beaucoup plus difficile parce que déjà pour nga am main d'œuvre bi ngay soxla xëy na pour ñu liggéeyal la mm-hmm. dana jafe mais ba boo ko amee par exemple fi nga doon soxla ben salle pour ñooñu ñëpp nekk fofu xëy na da ngay soxla ñaari salle wala ñett salle loolu yëpp mu am coût entreprise yëpp duñ ko attan donc soit dañuy wàññi li nga xam ne moom la ñuy exporté te loolu dafay am impact si si si mbir bi donc perspective yi fii moom mooy fexe ba ñun ñu gën a développer suñu résilience ba nga xamante ne yow boo amee sa marché intérieur ba mu baax nga am sa yeneen marché yi mu baax mais surtout ñu diversifier suñuy clients ndax boo diversifié wul sa client bu amee problème rek bu dee benn client nga am bu amee problème rek yow yàqu nga mais boo amee ay clients yu bari dina tane et heureusement pour le Sénégal dëgg la ñun ñu ngi am exportation yu bari yoo xam ne ñu ngi koy def sur le continent européen mais tamit ñu exportation yu gën a bari ñu ngi koy def ci continent africain mais eh, ak crise bi demande bi dafay contracté wu. ndax consommateur moom il est tellement rationnel. bu situation xaawee jafe tuuti rek mën na am day changer comportement parce que day naan xëy na xaw ma fan laa jëm donc damay wàññi li nga xam ne moom laay consommer. xanaa di wax ni euh, crise bi dafa nekk opportunité man moom gisuma ko problème pour man opportunité bu mag a mag a mag la pour Sénégal. mais il faut que Sénégal mu jël ci conscience mais surtout population bi ndax bu fekkente ne dañu yaakaar ni état kese moom mo am responsabilité bobu ñu ngi nax suñu bop ndax bu ñu tegee politique yi gëna bax baax financement yi gëna bax té population bi mbir mi intéressé wu leen jeunes yi ñu entreprendre du sotti di wax jeunes yi nañu dugg ci entrepreneuriat bi parce que léegi koo gis mu ngi la naan utal ma fonction publique fonction publique fonction publique réglé wul mbir mi fonction publique pour di fonctionner rek la mais ki nga xamante ne moom mooy tax ñu créer de la richesse ki nga xamante ne moom mooy tax tey jii ñu yóbbu suñu état suñu dëkk bi mu nekk souverain ci mbiru mu aliment dundin kooku ki entrepreneur bi la entrepreneur agricole entrepreneur commercial entrepreneur qui fan de bépp donc je dis jeunes vraiment nañ nous entrepreneuriat bi l'avenir du pays est entre leurs mains nañu liggéey xam ni pour bopp la ñuy liggéeyal seen njaboot ëllëg la